fake news mariage jugé ak feccikat bi di Kitana clash bébé Binta Fatou Ndiaye Kiné Ndiaye Rose justice réclamée pour agresseur ba ñu taal foofee ca Thiès PS Dien Koné Saliou Diop ak Mami Samb moqué par les ba fa Ourey Thiam defee ab passage ci seen plateau ba amal foofee ca sans limite mbokki internaute Dakar Média dal leen ak jàmm ñu di ñëw ak ci actualité bi daal di koy tàmbalee ak fake news bi nga xam ne cela fait presque internet bi laale ak présumé mariage waykat bi di Vigy moom nag euh, comme ni ngeen ko xamee dañoo nekk di fësal naan moom ak feccikat bi di Kitana dañoo daal di sëy mu nekk la nga xam ne nag selon beaucoup internet nekkul dëgg dafa nekk ay histoire ya nga xam ne dañu ko monté de toute pièces kii di Vigy takkul jabar moom ak Kitana sax relation amoureuse kenn amul firndeel ne daal dinay dox ci seen diggante les deux principales concernées nag jusque là kenn gisagul ñu daal di waaye bu ñu sukkandikoo ci ay poste ya nga xam ne ñoo ngi gis seen i jagañaale di ko amal mën nañu ne loolee amul daxa la nga xam ne nekk na la nga xam ni c'est fondé ñu daal di jàll ci kii di bébé Binta moom nag comme ni ngeen ko xamee ni kii démb dafa def benn poste ba nga xam ne yëngal na internet bi lool mu daal di xamle nag ci réseau social bi di Snapchat dañu bàyyi xaritu réseaux sociaux ndax dafa nekk la nga xam ne du la amal benn njariñ moom nag ni kii démb la ko xam nee na nag followers nañu moytu bu baax te xam ni ci milieu bi nga xam ne ñoom ca la ñu nekk bëggante wu ñu seen biir te ku ci nekk doo bëgg a defaral sa morom dara dafa mel ne da nga koy teg bët yow daal mën nga di sonn ci ñoom mais ñoom bu fekkee danga leen soxla doo am kenn ka nga xam ne daf lay daal di taxawu gannaaw ba mu defee bii les post nag lu yàggul dara ñu tàmbalee gis ci internet bi am ñuy def ay post naan moom li nga xam ne bind na ko daf ko jëmale ca kii di Fatou Ndiaye nekk la tiktokeuse la plus suivie ki nga xam ne moom moo nekk Kiné Ndiaye Rose nga xam ne fan yii sociaux naan dañuy ànd ñu ne nag kii di Bébé Binta dafa bëggoon lancer collection collection bi nga xam ne moom ma am na ko mu nekk Bébé Binta collection bi ngeex ñu daal di ñëw defaral ko shooting ñoom ñoo ñooñee ñu daal di bañ am sax ñu naan dañu koo daal di fayeeku xaalis mu nekk la nga xam ne nag moo tax réeroo bi daal di am mais nag ni ki tey daal dinañuy gis yenn compte yi daal di fësal ne nekkul dëgg ñoom ñu amul benn coow ba nga xam ne daal dinay am ci seen diggante yëpp ñoom ñoo ko orchestré seen biir ngeex daal di bëgg collection Bébé Binta bi daal di am doole maanaam dañoo xëyee bii les clash wala bii les sàndante xeex seen biir ngir daal di gën a mën a may doole collection bi nga xam ne kii di bébé Binta moo ngi koy lancé waat euh, ci période màggal bi la ñu daal di leen fàttali nag ne en guise de réponse euh, ni ki démb kii di Fatou Ndiaye moom pour sa part moom ak kii di Kiné Ndiaye Rose gis nañu leen euh, ñoom ñu daal di def seen duo ànd ca concert bi nga xam ne kii di Vivi moom moo ngi ko doon amal ak aussi di teg ay son ya nga xam ne dafay wax ca wàllum xarit bébé Binta moom sa part gis nañu ko mu Ndiaye Dollar mi nga xam ni souvent dafay wax naan c'est sa petite sœur daal di nag ne ñoom ci seen njëlbeenu ànd ga li nga xam ni fasoon na ci internet bi mooy ne nañu moytu bu baax ndax seen xaritoo bi dafa nekk la nga xam ni sincèreul woon ba gisoon nañ sax kii di Bébé Binta defoon benn vidéo di tontu pareil pour kii di Fatou Ndiaye doon wax naan ñi nga xam ne dañu koy wax naan Bébé Binta nitu intérêt la ñoo dafa mel ne xamuñu ko ndax moom yorul lu war a a tax Bébé Binta di ko topp ndax au parent aussi le plus souvent moom mooy kay fayal ñu daal di ñëw ca kaw ki nga xam ne moo nekk agresseur bi di PS Dieng nga xam ne dañu ko taal niki démb foofee ca Thiès gannaaw ba ko mbooloo bu faatee ay boori 6 heures du matin niki démb ci jeudi le 15 août bi coow li nag na mu demee wax nañu ne heure boobee ca fajar gi moom agresseur bi dafa am benn pentre ba nga xam ne dafa yéegoon ci motoom doon liggéeyi mu daal di koy dogaale agressé ko ba pare daal di jël ab euh, ngànnaay ba mu yoroon jam ko ko ba waa ji mujjee ñàkk ba sur le coup ndax deret bu bëri dafa daal di sotteeku moom nag euh, gannaaw bi nga xamee ni ful bi jot nañu ko maîtriser wax nañu ne dañu ko dóor bu muy bëgg dee yemuñu ca ñu daal di jël euh, ab pëna ba nga xam ne moo fa nekkoon daal di koy booleel taal ko ba noonee nga xam ni nag euh, ca la calciné woo gannaaw li ni mel nag la ñu alerté gendarme yi ñoom ñu daal di ñëw récupérer néew bi daal di koy yóbbu foofe ca morgue hôpital régional bi ñaari néew yëpp plus tard nag euh, dans la journée mu nekk la nga xam ne viral na lool dem nañu sax bay gis kii di Adamo naan daf ciy defal ab vidéo live ngir daal di ciy indi ay éclaircissement mais li nga xam ne daal gis nañu ne viral na lool moo nekk image waa ji nga xam ne wax nañu ne moom moo faat euh, bakken ba ñu daal di koy taal lëmbee na lool internet bi am sax ñu naan justice dafa nekk la nga xam ne dañu ko war a appliquer ndax bii les phénomènes nga xam ne ñoo ngi koy jël dafa nekk la nga xam ne bu yàggee dafay ëpp loxo Thiès foofee ndax képp ka nga xam ne danga nga fay nar a nekk naan dangay faat ba kenn ñoom dina ñu daal di ëlbatiku def li nga xam ne diine moom la santaane pour rappel ki nga xam ne moom moo nekk PS Dieng presque wax nañu ne il a été arrêté et déféré presque trois fois lu toll ci ñetti yoon takk dex yi teg nañu ko loxo ba daal di koy déféré au moment u mu ñu koy mujjee bàyyi nag dafa amee woon ab bracelet électronique loolee moo taxoon nag ñu daal di koy libéré ndax dafa nekkaale woon en quelque daal di ñëw euh, ci kaawu ki nga xam ne moom moo nekk Houraye Thiam Preragne moom moo nekk yaay ca kii di Vigie moom nag euh, niki baax ki dem démb dafa teewoon ca plateau bi nga xam ne mooy am foofee ca sans limite ca teewaayu chroniqueuse yi di Ngoné Saliou Diop Mami Samba ak euh, ñeneen ak ñeneen moom nag ñëpp daal di jàpp ne daf leen daal di remettre à leur place tegaat leen sur les rails xamal leen ne ñoom li nga xam ne ñoo ngi koy def sore na lool ak métier journalisme mu nekk ay vidéo ya nga xam ne viral na lool daf leen jox conseil ne leen nit bu fekkee ne nga dangaa nekk ab journaliste kenn waru la ràññee ci ban côté nga faax mu nekk nag euh, la nga xam ne ñu bëri dañoo jàpp ne dafa nekk benn leçon ba nga xam ne jàngal na ko kii di Ngoné Saliou nga xam ne moom dafa fax ak waa parti Pastef te nëbbu ko benn yoon mais aussi euh, selon les internautes kii di Ngoné nekk ka nga xam ne tout le temps même bu nekkee hors antenne dafay sànni ay tract ñi nga xam ne dañoo faxee ci opposition bi ñu ne nag euh, moom moom mooy di Ngoné Saliou bu fekkee nit la leçon yi nga xam ni kii di Ourey Thiam Prera daal dina leen koy jàngal dina jéem a changé doxalin te appliqué ko xam ne ñoom ñoo ñee toogoon ca plateau boobee amul kenn ka nga xam ne daal di ngay jëfe li nga xam ne Ourey moo ngi koy expliqué dem na sax eh, ci ay propos ba daal di leen xamal li nga xam ni ñoo ngi koy def léegi mu nekk la nga xam ne dafay yàq métier journalisme bi mooy jël ay extrait ci vidéo wala entretien ba nga xam nit def na ko mu toll ci une wala trente minutes nga jël ci dix secondes ngir daal di koy mën a viralal ci internet bi nee na moom nag euh, buggul sax nit ñi di ko présenter en tant que la moment de Vigy ndax moom dafa nekk Oureye en tant que une journaliste ba nga xam ni dangaa def ay preuve ba daal de agsi fi nga xam ne tollu nga fa Vigy aussi nekk doomam mais malgré tout aussi dafa daal di prouver ñëpp ne moom way bi nga xam ne daf koy def amul kenn ka nga xam ne daal dina ciy dugal loxoom il s'est démarqué tout seul ñu daal di ñëw ca kaw kii di Anita Diop pour la fin moom nag comme ni ngeen ko xamee deux jours yi nii yëpp nekk naka nga xam ne waa Pastef ñu ngay posté ay photom ba niki ba kii di Azoura defoon na benn vidéo naan ay dix heures dina xamle ana kan réellement moo nekk ca ginnaaw compte Anita Anita Diop boobee mu nekkoon na nga xam ne nag ñëpp ñoo ngi ko doon patienté gannaaw bu 18h jotee nag moom la principale concernée Anita Diop la ñu gis euh, mu daal di def ay post encore une fois jëmale ko ca waa parti Pastef bi di leen xas ngir ne ñoom li nga xam ne ñoo ngi koy amal amul dara la nga xam ne nekk na ci dëgg ndax nee na gannaaw ba ñu paree tuumal kii di Pape Malick Ndour Cheikh Yérim Seck Madiambal Diagne Souleymane Jules Diop wax nañ ne sax euh, kii di pot euh, nekkoon na ko Euh, Mam Mati Fall a Ndour Faye général Moussa Fall Ndeye Penda Ndiaye nee na aujourd'hui nag ki nga xam ne moom la ñu daal di jiñaat ne moo nekk Anita Diop dafa nekk ka nga xam ne approche la ca ki nga xam ne moo nekk Pape Malick Ndour di wuyoo ca turu Biram Faye moom nag nee na décidément waa Pastef dañoo nekk ay nit ña nga xam ne duñu bàyyi te li nga xam ne chaque fois ñoo ngi ciy dox moo nekk di lëre askan wi naan dañ leen di fenn aussi di leen manipuler nee na li nga xam ne ñoo ngi koy wër ñu ci yàgg mais duñu mës a découvrir ana kan réellement moo nekk Anita Diop c'est peine perdue nañu noppale ko ñu daal di leen fàttali nag ne ay fan yëre ñu génn moom kii di Anita Diop ki nga xam ne moo nekk Seydina Omar Touré dafa déposé woon benn plainte pour diffamation en son encontre li ko waxal nag mooy Anita Diop dafa xamle woon deux mois après nomination kii di capitaine Touré dafa nekkoon naan dafay waxaale benn kër ba nga xam ne mu ngay jax deux cent millions de francs CFA mu nekk nag la nga xam ne jaaxaloon na ñu bëri gannaaw ba capitaine Touré déposé plainte bi moom kii di Anita nee bu fekkee ni ay déclaration tax na kii di Serigne Touray daal di dellu ginnaaw loolee baax na ci def koy sante yàlla mais nag euh, li muy bañ daal mooy ay nit ña nga xam ne dañuy ñëw naan dañoo bëgg anti système teewul ne dañuy woyal di lëre askan wi naan dañuy lekk seen xaalis nee na moom nag dafa nekk fii ngir képp ka nga xam ne dangaa takk ci Ousmane sonk wala ngay liggéey ak moom li nga xam ne danga koy def nga daal di koy teg si yoon wa ilaa lépp la nga xam ne gis na ne dafay laale ak wàllum njuuj njaaj wala dangay jëm ci lépp la nga xam ne dafay lëre askan wi Argentine